asalaamaaleykum suñuy mbokk internaute tey ñuy am mbégte di dalal euh, l' inspecteur Kadam inspecteur moom mooy gérer lépp li xam ne mooy wàllu tàggat yaram fii ci département wu Koungheul euh, ñu dalal tamit euh, monsieur Pape Birame monsieur Pape Birame moom mooy président club Bambou tey nag su ngeen gisee ni ñu ñu toogee ni ñu solo ñuy waxtaanee lépp li xam ne. wàllu wàllu wàllu sport wàllu Koungheul Bambouck rek la ñuy la ñuy la ñuy waxtaanee tey ci suñu suñu émission inspecteur Kadam ñu ngi am mbégte di la di la dalal nga suñu mbokk internet. waaw maa ngi nuyu internet Koungheul Info di rafetlu invitation bi te eh, mu yéexoon trop parce que yaakaar joon nañu waxtaan ak euh, par rapport ak ASC maa xam ne moom moo ñu soxal.

ñuy am mbégte di la di la dalal ci suñu ci suñu plateau. waaw salaamaaleykum mbokki internet bu nga lay wax comme ni ko waxee rek nekk na jotaay bu ñu soxla woon di fàttali ne aussi je suis le premier vice président le président c'est le maire Mayacine Camara donc nekk na loo xam ne produit boo xam ne vraiment dañ ci kontaan waxtaanee Koungheul Bambey dina doon ko soxal parce que aussi nekk na comme ni ko waxee une équipe boo xam ne. dimension départementale voire même régionale parce que de Catherine à donc euh, des émission remercier possibilité de exprimer problème merci beaucoup merci beaucoup monsieur le vice-président nous nous ça fait ça fait je pense deux ans. Euh, tey suñ doon def bilan wu Koungheul Koungheul Koungheul Bambouck bilan wu yéen seen gestion. waaw loolu dinaa si sawar a wax parce que même équipe sortante aussi maa ngi si biir parce que j'étais le secrétaire administratif bi Matar Ba nekkee président bi donc ñoom aussi ñu leen di jaajëfal parce que ba mu Bambouck xëyul xëy leen nekk. je pense que depuis 91 Bambouck mu ngi doon évoluer euh, si championnat. Euh, ñoom Matar gestion boobu aussi je suis comptable avec eux parce que j'étais dans le bureau. maintenant on a parce que trois années consécutives yoo xam toujours on Bambou day génn premier régional mais yàlla def suñ demee tournoi du monde toujours fa la ñuy le deuxième premier bi dem trois années yëpp. yaa fekk nag en 2012 janvier 2012 pour ñu ko renouvelé je suis devenu le vice président maire son président équipe bu ñu nekkal nag yaa fekk année boobu la ñuy joué euh, le champion régional dem finale nationale nekk vice champion.

bilan bi positif parce que nekk première année bi deuxième année difficile am nañu troisième année avec beaucoup de difficultés maintenant nag si kanam tuuti. difficulté yooyu difficulté nous dinañ ci ñu ñu ñu ci management ci c'est comme si Bambou

parce que tamit l'année dernière am nañu maintien bi mais ñu ñëw na woon équipe boo xam ne moo ko doon door a ñëw par équipe yi ñu fekkoon ils ont 6 ans 7 ans en national donc on xamoon nañu réalité yaa fekk ñëw nañ dem dem ay séeréer ku ne bi ñu boo xam ne depuis 8 ans 9 ans moom ñun moom la ñu ñafeel pour maintenir ba mu wàcc donc loolu moom dinaa se remercier engagement technique ak joueur parce que c' était pas facile nga jël su ko fekk ñoo xam ne ils fait 7 ans 8 ans

waaw je pense que ne li ko war a saafara mooy ne il faut que doomu Koungheul yëpp ñu ci biir ak ci biti def ci seen loxo parce que équipe bi quand on parle ci équipe communale bi commune bi la ñu am pour voter et budget Sénégal xam nañ ñun nan lañ nan lay demee budget bi balaa ñu koy exécuter day dem mois de juin presque te or que yaa ngi démarrer ce championnat au mois de novembre gàpp boobu.

loolu c' est supplémentaire parce que boo calculer que ne mu ne la am naa prix mu vingt mille ou quinze te awta à bas moom duñ mën am ça pose problème je pense que yooyu il faut que pour ñu wut moyen yi ku ngeen ñun man man bam bam wala euh, si si si je me trompe pas chaque année budget boobu yéen yéen a ngi ciy jot est euh, moo tuuti wala yéen da ngeen jotul budget bi wala wala wala wala gestion Euh, bi nga xam ne moom lay dugal donc di di di gérer budget boobu ñu ngay ñu koy alloué moom moom moom moom moo jaarul yombal la. waaw merci beaucoup Emile foofu dinaa si mën a tontu par rapport à budget bi nga wax c'est-à-dire que comme ni ko Kadamu waxee on commence les compétitions au mois de novembre budget bi yaa ngi ci jot ay mois de septembre te budget bi c'est benn subvention la aide la par rapport ak mënul couvrir dépense boobu pour été loolu mën naa la jox par exemple l'année dernière deux mille treize deux mille donc, Bambouk Mouvi fonctionnait autour de 5 823 000. Sur les 5 823 000, la 3 millions est allouée comme subvention. Sur les 3 millions, à l'heure où je vous parle, on n'a reçu que les 2 millions. Les 1 million qui restent, depuis l'année dernière, je bataille nous entraîne dans notre compte. Amour Ben vivement, trésor de ce compte Bambouk. Mais ce qui est sûr et certain, moi-même, on a confectionné les dossiers, yóbbu ko mairie mairie def na engagement bu dem si trésor mais ba tey décaissement trésor vers compte Bambou xaalis boobu mu dugg ba tey question foofu trésor mais ce qui est sûr de sûr dossier maa ko yóbbu mairie traité nañ ko yóbbu nañ ko trésor le pourquoi trésor fayagul ba tey xaalis boobu ça pose problème foofu nag dinaa si profité tuuti euh, wax Matar Dramé président commission sportive bu mairie posé woon naa ko problème boobu ma ne mënoon nañu anticiper comme tôt ou tard comme ils ont dit dina de la même manière comme nous avons def bu subvention zone yi di pour maire bi yooyu yëpp xaalis boobu mais ils ont trouvé des moyens à gauche à droite pour jox ñooñu seen subvention Nous loolu tax ñu waroon laaj lu tax ñu waroon parce que dafa répercuté sur la saison parce que les 1 million qui restent là nous avons boo xam ne bu ñu ñëwee fonctionner ce sont des dettes parce que l'année dernière

tribune bi wax leen ne dañuy dimbali jël loolu ñu mën ko éponger pour que au moins ñu mën a parce que faar boo doon def suñu kaw. léegi inspecteur inspecteur yow yow yow euh, nguur gi nga fi nga fi nga fi représenté te gis nañ ni nga ni nga jege équipe bi chaque fois équipe bi suy football sax ci banc bi ngay ngay ngay faral di toog ndax en tant que représentant de l'État est-ce que de facilitateur wala sax.

nous on peut parler avec le maire à chaque instant son nom ci yeneen détails xam des fois mais voulant que nous épauler parce que boo xoolee équipe mais l'entraîneur les dirigeants les joueurs donc ça pose problème problème boobu ñun ñun parce que ñun ñoo vivre ak ñoom parce que on avec deux ballons deux ballons

ñoom Paderem wala bàyyee ko ñoom Bambou c' est la population moom moo war a approprier wu moom moo war a approprier wu club bi donc ñoom dañu war a seeti dañu war a supporter ñoom gisuma sax comité supporter yi nga xam ne c' est pour c' est pour c' est pour Bambou donc y' a un problème bi nga xam ne mu ngi mu ngi mu ngi am ci Bambou te ñu ngi seetaan ñu ngi seetaan ñu ne ñii ñoo suñu dirigeant ñoom dañuy seetaan alors que on peut on peut on peut faire quelque chose pour le pour le pour le club donc là on va faire un appel à travers.

le bureau ñu sentir une connotation politique parce que je peux m'exprimer pourquoi Mayacine qui est le président politiquement il est au niveau de man mii vice-président bi politiquement je suis du PDS président commission sportive bi il est du PS am na yëpp donc amul coloration politique bu doon politique rek yaakaar naa ne moom Mayacine bi mu mën a liggéey parce que PDS en affaire fu mu toll nii ñaari entités séparé wu c' est pour vous dire que bu ñu ñëwee si Bambou couleur politique bi seetlu ko lan la lan mooy développé Koungheul

Ce n'est pas forcé que tu es le président, il y a un groupe de défense. À l'heure où je vous parle, moi, je suis là, moi, moi, je suis le reste, je suis le Je peux te donner un exemple pour l'année dernière. L'année dernière, vous avez 5 millions 800, les 2 millions 50 000 francs. Mais là, c'est vous venez de tes propres poches. Goudit, masse goudet. Gidi mana konto masugude masugude Wow Yeah Khalil You me Nila ko bëggee